bisimilah waaw ah, asalaamaaleykum Cheikh Ibrahima loo bëgg yóbbu njaañ mi waaw ah, ñun ñu ngi ci waajtaayu saalix fi mu ne guddi gi tey la lan àllarba mhm. heure bi je crois ban heure jot ma xool trois heures moins la mhm. Mhm. nelawuñu parce que dañ doon trier tiir yi war a dem di defe naa moom wan na leen ko saalix tiir yi war a dem moo nekk nii lii ay yére la ñu ko war a yóbbaale incha allah ñaari complète ngokk ñett juróom ak montre bi moom lañ ko yóbbu nga xam nga buur la ndax jàngalekatu alxuraan buur la ah? moom lañ ko yóbbul lii mooy maraaki si nga xam ne itam incha allah moom lañ ko wutal mooy marakis la bu saas mooy nga xam ne bu bees bu bu jàpp wutal hmm. nañ ko lii ay cuuraay hmm. cuuraay arab la wutal hmm. nañ ko itam parfum moo nekk ni awut xam nga sëriñ si dañ du ñu ay sëriñ ñoom ñooy sëriñ si suñu ko voilà ñu parfum la ay cuuraay la mooy xaalis bi nga xam ne moo war a dem njaay waaw lii daal mooy koppar yi war a dem euh, danañ ci boole ñaari tonni ceeb moo war a dem incha allah danañ ci boole itam euh, juróomi saaku suukar muy deux cent cinquante kilos deux cent cinquante kilo suukar dañ ci boole itam deux cent ngi litres diwlin moo war a dem kon suukar dana dem euh, deux cent cinquante kilo du noonu ceeb deux tonnes dina dem diwlin deux cent litres dina dem euh, euh, nu mu tudd téere yi na xamuñ nu mu toll yére yaa ngi nii parfum yaa ngi nii koppar yaa ngi nii ñu moo war a jëm njaay insha allah ci sunu sëriñu daara boobu xam ne buuru buuru alquran la loolu lañ fa war a demee bu soobee yàlla sunu borom kon ñu xëyee suba rek ñu ci liggéey moo tax booba léegi tooguñu ñu doon trier téere yi bu ñu demee ci kanam tuuti Moustapha dina génne ceeb bi li war a dem yëpp dangeen ko xam. Hmm. ndax bu doon nit yi caaxaan yi bu ñuy def dañ koy ngandal xanaa nag nitu daara la di nit ku baax mu génn prison na ñu fas yéene dem nag ndokkee li ko ba pare sant suñu borom subhaanahu wa taala. Hmm. am na kado yoo xam ne wutal nañ ko ko mais foofa lañ koy wanee. Hmm. foofa lañ ko koy joxe kado yaa ngi ci bagage yi incha allah. ay ca loolu lañ leen doon wan fii ci daara Sëñ Babacar fi la ñuy xëyee nag suba ci alxames bi déparé fi dem Njaañ ànd ak oto yóbbu bagage yi incha kon nag loolu Salim mooy ñu ma doon laaj ak ay Njaañ Njaañ mi daal ñu ngi ci seet seen xaar yi merci